jërëjëf mbokk yi seetaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di nag fas yéene àndaat ak euh, yéen euh, ci ab plateau spécial bu TFM jagleel ñu koy seetaan saa su ne ni ngeen ko xamee ñu jëm ci gàmmu gi li koy lal nag fii ci suñu réew am solo lool nekk cosaan sax daanaka mooy burdu bi tey nag TFM bëgg samp ab waxtaan pour ñu xam xëy na. lan moo wundu burdu bi fa mu jógee lan mooy njëriñam ak naka lañ koy jëfandikoo euh, si loolu nag la ànd ak ñu seen xam-xam màcc euh, macha allah ci wàllu euh, tijaaniya ci wàllu lislaam de façon générale ma war see ànd ak sama ndeyjoor docteur Bachir Ngom docteur ñu ngi lay nuyu. Euh, ki topp ci moom di imam euh, Jabel Kouyaté imam ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax euh, naka noonu it Ousmane Ndiaye di jàngalekat professeur Ousmane ñu ngi lay nuyu. ngi lay fay bu baax waaw tey nag ñu am aussi suñu consultant Abdou Aziz Mbaye nekk ci kër gi nekk une personne ressource xarañ lool ci wàllu yi ni mel xam ko bu baax a baax. tey moom mooy nekk suñu consultant accompagné ñu euh, ci nga xamante ni moom mooy plateau bi ñuy def ni Aziz ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay Papis. dañuy it euh, jokkoo ci téléphone bi ak euh, ki nga xamante ni moom it professeur la ñu koy woowee Ousmane Diaw sama doom dina moom it intervenir ci kanam tuuti pour fekk si si plateau bi lay mi nga xamante ni moom lañ leen di proposé. kon ni ñu ko waxee ci tàmbali bi laataa ñuy sori dañuy rek ànd ak waa Régie nu ñëw ci benn cat bu ndaw loo xamante ni dafa aaju ci burdu bi laataa ñuy soobu ci waxtaan bi Ndiaye Diouf ci réalisation bi jërëjëf kon loolu mooy euh, tàmbali émission tey bi nga xamante ni ñu ko jàkk euh, jagleel euh, bourde maanaam luy sens bi lan mooy njëriñam fa mu jógee lu ko waral ak li nga xamante ni xëy na mooy njëriñam sama consultant lay àndal tey muy Abdou Aziz mbay Abdou Aziz man dafa am benn li ma bëggoon nga junjee waxtaan bi damay këf sa ay prérogative dama la déglu sànq si couloir yi par exemple ñuy wax bourde bi tey la suba la lan mooy définir date bi ak naka lañ koy définir pour sama classe bi nga xamante ne xëy na seen xam-xam màccu si loolu wala ils sont pas trop traversés par la chose. jërëjëf Papis di delluwaat nuyu. di gërëm suñu invité yi. Mhm. mais di ndokkeel askan wi. di ko jaarale ci loxo sëñ Bay Si Mansour. régional di Tidiane. mu ndokkeel ko ci lii ñu dugg muy burdu bi. Mhm. tey jii ñu ngi burdu ci Tivaouane. di ci ndokkeel ay rakkam sëñ sëñ Sidi Ahmed ibnu sëñ Babacar sëñ Pape Si Malick sëñ moodo ak seen i rakk ak képp kuy jullit nekk ci réew mi képp kuy xalif général ñu ngi lay ndokkeel ndax burdu weer wi ñuy dugg ñu ngi jublu ci euh, naissance su Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu askan wi yëpp ñoo ko bokk. fii ngeen gis léegi ñu génn mooy Tiwaawan xam nga ko bu ñu waxee gàmmu rek foofu la ñëpp di dem ñii gàmmu ñuy woy burdu bi. ñii tamit dafa fokk ñu xam leen. papis fokk ñu xam tamit nii lan mooy burd fan la jóge lu tax maam Seydi Aj Malik bàyyi li mu bind jël bindu keneen. lu tax mu tàmm fukki bunt parce que bunt bi burd bi fukki fan la. lu tax mu tànn bis bu nekk ñu ubbi benn bunt ak bunt bu nekk lan lay lan lay jëriñ mhm. mais papis buñ ci jógee dinañ war a mën a xam ni lan la góor gi doon jublu ci loolu ban enseignement la ci bëgg a joxe mhm. mais daal li ma jox comme mhm. date de repère bourde bi ñu ngi ko commencé 1902 1902 ci Tiwaawan ci Tiwaawan mais jiitu loolu maamu kii toog muy euh, maam rawaan Ngom màggal na guddi Seydina Mohamed ak soppeem ba xaritam ba sëriñam ba maam Seydi Aj Malick ci benn néeg ku ne yor xaaju suuf ki yor xaaju kaw. kon ñoom daaru noonu gàmm avant ñu ñëw Tivaouane 1902. kon loolu ci wokk foofu pour camper débat bi. camper débat foofu laa bëgg a dugg ñu ah, waxtaan. alors li ma la laaj moom lay euh, tàmbaleeg docteur euh, mooy euh, tàmbali burdu bi laataa ñu ñëw si solo beeg li li ko li ko wër. ni mu ko waxee sànq ñu ngi waxtaan ba bi ñu préparé émission bi maak Abdou Aziz ñu ngi waxtaan maa ngi ko dégg si téléphone bi mu ngi wax burdu bi tey la wala suba la. naka la ñuy jàppee bés bi pour Sénégalais yi parce que dañoo bëgg tey. li ñi xam lan mooy solo burdu lan mooy burdu ak li ko wër yëpp déjà lan lañuy ñuy lan la ñuy taxaw pour jàpp ne tey la ak li ko waral. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah ak Papis ñoo ngi leen di nuyu di nuyu Alxaj Abdul Aziz ak sama ñaari mbokk yu tedd yi ma nekk Alxaj Jabel Alxaj Ousmane. burda niñ koy jàppee mooy bu weer wi feeñee maanaam bu ñu séenee weer wi tey ci guddi timis dañuy jàpp ni dañu war burdu. noonu lañ ko daan jàppee depuis bi Mawlana Cheikh Al Hadj Malick di dund radiallahu taala anhu ba tey léeg nag xabaar bi xaw a yeex a tas ñu kon nañu bàyyi ba suba ñu boole ñaari burdu waaye burdu moom ñoo ngi koy jàpp rek. Mhm. weeru feeñee. mu kon benn fanu gàmmu. Mhm. day fekk burdu jiitu ko. bu ñu nee suba la benn fan fekk na de guddi gi jiitu ko ci guddi gi. Mhm. donc noonu lañ koy jàppee. Mhm. xanaa laaj bi mooy bi ci tegu euh, Abdou mooy xëy na ñu wax burdu fan la fan la jóge imaam burdu fan la jóge fan la jóge ak lu ko andi ak nu mu ñëwee. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man wala euh, haj papis ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di nuyu sëñ Abdou Aziz di ko ndokkeel di ko ziar bu baax ci cëram ci kër gi ak ci diine ji de manière générale nuyu sam pap bi ma toogal nag tey dama xaw a fa tabarakallahu euh, am tuuti émotion ndax sama professeur la euh, moom ak docteur Abdoul Aziz Kébé maa ngi leen di nuyu ñoo ma jàngal nuyu professeur euh, Ousmane Ndiaye di seede ci moom ba may def sama mémoire à l'université Cheikh Anta ci Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh mboolem wasaaix yi nga xam ni moom laa doon sukkandiku pour mën ci bind ci moom la jaar donc je me rappelle benn kii bu ndaw balaa may tontu am na bés ma ni ko dama soxla ay document ci Cheikh El Hadj Malick ndax moom ci teesam mi ngi ko def ci Cheikh El Hadj Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu euh, ci wàllu wasailu tarbiya ak euh, c'est-à-dire anwaau tarbiya yi nga xam ne Seydi El Hadj Malick école am noonu la ko sampe te loolu sax dina dugg ci laaj bi mu ni ma document yi nag damay def conférence ca gore nag ma fa fekk boobu mu ngi may tarbiya mhm. ci laa ko fa fekk fa tabaarakallaahu ci la ma ko jox mi ma yow de ku am yitte nga mhm. ma koy bokkal dara ba may dem mu ni mu lem sama loxo génnewaat leneen ci poosam jox ma <laughs> ni ma yow étudiant nga eh. kon loolu maa ngi koy seede pour wan ni rek mm. ñoom ñu baax lañu alhamdulillah laaj bi nga laaj burda mm. euh, baat boo jël Euh, dafa da xam nga un naa de sens que dans le contexte où boo jëlee baatu burda lughatan ci arab mooy mantu burda loolu lay tekki mhm. olof nag moo naan burdu mhm. moo tax Serigne Mansour borom daara yi yal na yàlla yokk leeram daam na wax ni burda bur atu la waroon tudd deel bi dañ ko waroon soppi def ko alif mhm. li tax ki ko bind di euh, Mahamadul Busoyr dafa feebaroon feebar bu méttee métti bu mu tëddee feebar nag Euh, mu ni faju na fu ne ci tënk ci waxin mu ni waaw ki nga xam ni mooy euh, tabibul atibaa yi maanaam le médecin des médecins mooy la prophète sallallahu alayhi wa mu ni kon naa def tawassul naa bind benn qasida tagg ko ci sàkku ko ngir moom ma mën a wér ci barkeem muy tagg nag def ko ay bunt comme ni nga ko waxee mu doon fukki bunt lan mooy lan mooy buntu tey dañu bëgg mu leer si boppu Sénégalais yi ndax ñi dañuy dégg rek voilà ñu bind luy luy bunt ñu bind pour ñaan yàlla voilà mooy tawassul pour pour mën a moom mm. mooy chapitre léegi nag mu def ko fukki chapitre mm-hmm. yoo xam ni fa tabarakallahu mi ngi ko tàmbalee xasal amin tadakkuri jiraanin bisi salami mm-hmm. mazajta dama an jaramin muqlatin bidami lépp nekk miim ya boo demee rek nag ba mu bunt yi jeexee mu tënk ko benn mudariya nga xam ni bés bu nekk moom la ñuy jàng ba mu koy bind nag ba mu àggee ci benn bayit pour wan téere bi baatan bi ci ne ndax Cheikh El Hadj Malick dañ ko daan laaj dañ ko daan wax ni ko dégg naa burdu ku ko mokkal waliyu nga maanaam téere bi ci maandute mu ne ah, loolu de wóoruma waaye waliyu yëpp mokkaloon nañu waaw téere bi ku ko mokkal waliyu nga mu ne loolu de leeruma mais ku ñu jiñ ñi waliyu nga mokkal ba bu sayri di bind ba àgg ci bayit bii ma lay bëgg a wax fa mablahul ilmi mhm. fiihi annahu basharun dafa gàtt xamatu inspiration mel ni dafa dafa arrêté mhm. xamatu lu muy way lu muy yokk ci wayu yonent yàlla ci boppam moo ko feeñu ci jëmmam ni ko parce que li mu bëgg a wax ci way bi mooy li nga mën a wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo ko tagg-tagg doo weesu nit la mhm. yonent bi alei salatu salaam ni ko waaw nit laa mais bokk maag yéen yokkal ci way wi wa annahu xayru xalqillahi kullihim lu yàlla bind maa ci gën sans exception léegi nag si la summi mantuwum ba burda boobu li andi baat bi burdu solal ko bu séeri ci la wér te daawul faali ci la amoon comme genre AVC bis boobu ci la tane moo tax burdatu Cheikhul Hadji Malick yi woowu ci ne mu bëgg ko bokk ak ñun donc loolu benn point la sigam am na yeneen point xëy na pour bañ a guddal en tout cas imam tey moom tey dañu bëgg lépp leer dañu bëgg tey leer voilà waaw Aziz ko juste ma ñëw euh, mhm. moo di euh, wax na ko léegi bind mi di di wax mais euh, naka la parce que aussi burdu doo yor sa këyit rek mën nga ko bind di ko lire mm-hmm. Mm-hmm. lan la ci jublu woon procès bi mooy mu wér mais lan la ci jublu woon ndax ngëneel gi day am wala da nga koy mokkal dara fekk la ci wala bi mm-hmm. waaw lu am solo laa laaj ginnaaw bi ma nuyoo suma naataango yu tedd yi Hadji Papis Abdoul Aziz ak suñu bàyyi suñu professeur docteur Bachir imam Jamel tabarakallah laaj nga laaj bu am solo dafa am lu ñuy wax ak taabid bis xam na mooy taabid hmm. mooy li nga nekk su neexul yàlla nga remplacer ko ak lu neex yonent bi yàlla defar la bayre bu ëpp njëriñ ca la nga nekkoon ma jox la exemple tey hmm. man dama naan tux hmm. ma dem ba yàgg ma jël tux gi remplacer ko mat ci suukar dañuy dem ba bu ñu tuddatee suukar sama xel xel yëpp dem man ma am ci barke luy loolu imaamul Busiri dafa amoon éloquence maîtriser langue arabe làmmiñ wi ñaw mën na tagg buur ba mu daanu mën na daaneel nguur si communication mën na daaneel nguur mën na falit buur mhm. loolu nekkoon métier élection sax bu ma saan am da koy luyee fay ko pour ma defal la sa communication mën na laa fal léegi mën na laa wàcc mu di si dund di si dund di si dund ba am quatre-vingts ans par exemple mu màggat daal di feebar xel mi neexatul cër yi amatul njëriñ te ñun ñëpp xam na ni nit boo ko dee liggéey da ngaa mën boo mënatul mu bala mu xam ni mi ngi jëm yombal xiyaam te lim paas amul njëriñ mu def lañuy ñuy wax taawin mu ni léegi buur yi ma daan way di leen fal ñuy falu di ma bàyyi tey maa ngi jëm si dee kenn faaletu ma waaye est-ce que du ma remplacer sama xel mu rafet mi ak xam-xam bu rafet bi ma remplacer ko koo xamante ni moom lañuy yaakaar ëllëg mu yonent bi loolu mooy objectif bi mhm. muy xaaral ma defal buur pour waye ko yonent bi pour réparer ko li passé ak tamit préparer ko yombal xiyaam ak tamit génn ci situation bi mu nekk ba tax kenn tu ko ci la ko commencé di ko way di ko way di ko way ba àgg ci benn chapitre foofu nag douleur bi jàpp na ko ndax feebaru AVC la woon ah gëmmentu na xamatul lu muy def mu tëdd nelaw yonent bi sallallahu alayhi feeñu ko na ko premier chapitre bi doo àggale deuxième bi mu ne ko nu ma koy àggale sama douleur bi jàpp na ma amatuma xel yonent bi ne ko bàyyil ma àggaleen la ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim daal di simmi mantoom moom sallallahu alayhi wa sallam solal ko ko mu yeewu wér léegi bu ñu wéree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci imam Mursi nga xam ne boroom xam-xam la bu ñëpp respecté ñu ngi mel ne xalif général mhm. nettali ko histoire bi moom yonent bi te boobu imam Busiri yeewoogul imaam Mursi xëy ñëw kër imaam Busiri ne ko yonent bi nee na la nga ko doon tàggee démb ba tax nga wér nga jox ma ko mu ne ko mosuma koo waxante ngi ku dul yonent bi fa la commencé nag am promotion li ngay jànge foofu mooy kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese moo jar nga sacrifier sa bopp sacrifier sa bakkan mu jëriñ la njëriñ Allah keneen koo sacrifier sa bakkan ku dul bi boo màggatee mu bala fa xam nga lay tegtal bi annabi yu awlaa bil muminina min anfusihim loolu la imam Busiri jëfandikoo papis mhm. gis nga gis nga Ousmane uh-huh. dafa gis nga Ousmane fi mu génn wax nu uh-huh. expliqué bi leer na mhm. leer na mais mais ñun dañu am problème suñu problème moo di dañu jekki-jekki rek góor gu tedd indi burd te ànd ak maamu kii mhm. parce que imam Bachir professeur docteur Bachir maamam maam rawaan la maam Seydi Hadj àndaloon di def gàmm mhm. te booba woyugul burdu woyugul burdu mhm. ma imam Bachir mhm. euh, ñoom ñu doon wàcce alxuraan kaa xaaju suuf ak kaw ba càgg ñu bàyyi ko fi ñëw burdu di woy burdu mais lu tax loolu hmm, danaa wax ni euh, Mouhamadul Bousayri du ko ndaw euh, kilifa gu réeréy la lu jiitu muy nekk woykat di tagg Seydina Muhammad kenn la woon ci waliyu yi gënoon kawe ci jamonoom muy benn ñaareel bi ku jekku woon la li nga xamante mooy xam-xamu sharia muy ñaar ñetteel bi ku teeloon mokkal alquran la égyptien la aussi euh, yàlla dogal li mu bind ci way kenn xamul na mu toll Euh, téere bii di ñu koy wax Burda deux cent onze boroomi xam-xam ay wali yu mag jël nañu seen kàttan seen temps seen lépp di ko jëm charx di ko jëm commentaire deux cent onze borom boroomi xam-xam ci li ma ci xam mhm. cent onze laa wax yoo xam ni ñëpp ay awliya ulu bi gën a tal ci yooyu nag mooy burd dafa bokkoon ci awraatu Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala an burd du tey ndax imaamul Busayri mi ngi génne àdduna ay 1295 yooyu 1295 loolu du tey ay sixième siècle depuis la la gane woon àdduna ci prophète euh, li tax nag Cheikhul Xaaji Malick tànn ko hmm. xaw ma ko waaye xam naa ni mën am na ngëneeli tànn gi ngëneeli tànn gi mooy euh, premièrement Cheikh El Hadji euh, Malick radiyallahu anhu kuy bàyyi bëtam ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane te gis na fi mu teg burd mhm. boole ko ci awraatam lii xajjabeel wax ni laaj nañ ko moom Cheikhul Hadji Malick di ko ndax ku ko mokkal di waliyu mu ni ah wóoruma de waaye waliyu yépp ko mokkal fi mu nekk nii boo doon gëstu ci téere yi di seet rek boroom xam-xam yi yitte jiñ ko jox kon danga naan fukki fan yi ñu koy way tuuti na waaye tuutiwul ndax bis ñu koy waye bisi leer la Cheikhul Xaaji Maalik nag ci biir gàmmoom ak mboolem mag ñi nga xam ni ñoo doon gàmmu lu jiitu jamono ji ñoo ngi daan way euh, yeneen di way burde ci la bokkoon Cheikhul Xaaji Maalik ñaata yoon la ànd ak maam Alaaji Rawaan fekk ñoo ngi wàcce alquran mhm. waaye tekkiwul ni way ñoo burd xam naa ni mën nañu ñàkk way burd fukki fan yi waaye xam naa ni ñoom daan nañu way burd même bu fekkente ni gàmmu jotul sax mhm. waaw way nañ ko ay yoon te fekk gàmmu jotul mhm. kon bu ko defee euh, fukki fan yi tax ñu di ko way noonu bi si jëkk mooy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am na ñu wax ni tey na ko suba ci la gane woon àdduna am na ñu ni déedéet ci ñaareelu fan bi ñetteelu fan bi ñeenteelu fan bi juróomeelu fan bi juróom-benn fan juróom-ñett juróom-ñeent fukkeelu fan bi. Mhm. waaye fukkeelu fan bi ak benn kenn limaale wu ko. maanaam ñi nga xam ni ñoo wuute ci juddu ana gane àdduna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñoo ngi wute ci diggante benn fan ak fukki fan benn fan ba fukki fan. Mhm. fukki fan ak benn kenn tudd ko fukki fan ak ñaar la ñu tuddaat mu mel na Cheikhul Xaaji Malik la mu doon junj. ci gane ak àdduna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni at mi mu gane àdduna lépp leer la wax darratil ard wal ashjaaru qad xamilat mhm. summiya al aamu aam al fatxi wa rafami Cheikhul Xaaji Malick nee na at ma nga xamante ni Cheikh Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gane na àdduna at ma yëpp dafa dafa naat atum naataange la atum ubbiku la atum jàmm la aussi at ma wax na ni mbooleem rab yi nga xam ne ñoo daan daje ci àll bi di fàdd seen moroom daje nañoo kañ daan fàdd te amuñu benn problème ak moom benn problème ak moom amuñu loolu nag xëy na li nga xamante ni maanaam moom lañ ciy mën a jàngate mooy atum jàmmale la boon atum jàmm atum jàmm mhm. bu ko defee koon loolu mën nañ koo wax ci fukki fan yi nga xamante ni ñu ngi koy burdi kon fukki fan yi bisu noppaliku bi kenn tudd ko fukki fan bi ak ñaar ñu tuddaat ko muy bisu gàmmu gi euh, Cheikhul Xaaji Maalik radiyallaahu taala bunt yi nga xam ne tudd na ko maanaam burda mu nekk fukki bunt ak ñaar bunt bu ci nag dafa am gëneelu boppam hmm. alxaaj Ousmane tudd na léegi alxaaj Jabel tudd na léegi bunt bu njëkk bi ñu bare dañ ko tuddee xazal même borom xam-xam yi dañ ko tuddee xazal xazal ñu ko doon def mooy dañuy teg benn jongo ma di waxanteeg moom fekk na moom li ko li li ko li ko gamba leer bi ko gamba mooy leeru Madina Munawara leeru Madina Munawara la fa nekk ci ay doj docteur man dama bëggoon euh, ñu taxaw foofu tuuti mhm. ndax euh, nee nga si sama jàngat bu ndaw buntu bu nekk am na lu mu tekki ak lu mu lu mu wullu ci lu waaw lii dem li ma bëggoon nga tojal ñu ko si kanam mhm. laataa boobu nag dañuy génn studio bi dem euh, fekki Ousmane Diaw professeur mi ñu annoncé woon ci mhm. tàmbali bi Euh, Ousmane Diaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. voilà di leeral na yow jàngalekat nga euh, ñu lay gërëm ci li nga participé ak ñun tey ci émission spéciale bi ñu consacré Bourd. alors euh, xam nga borom xam-xam moom da nga koy déglu rek dañ bàyyi nga dugg si bunt bi la soobee pour accompagner fan moo la ci neex ban morceau nga bëgg duggee ci émission bi Ousmane Ousmane Diaw. waaw fii mu mel ni Ousmane euh, yembagul euh, ñu kon ñu dellusiwaat si ci plateau bi le temps ñu koy arrangé ci waa régie alors kon dañuy bay professeur mu wala mu ngi may dégg alors euh, Ousmane ñu ngi lay nuyu man man man man man maa ko déggul vie donc ñu ñu ñu jàll Ousmane Ousmane waaw waaw maa ngi lay dégg bu baax. voilà ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal ci participation bi alors euh, ñu ngi lay déglu sa participation ci émission bi tey bi ñu jagleel wàllu euh, burdu bi nga xamante ne tàmbali na tey ci guddi euh, alxames. waaw ci ci ci Tiwaawan. bismillahi rahmaani rahim. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaam wa rahmatullah. xaaji Papis Diaw sama doomu baay. waaw. <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf. di nuyu mboolem ñi nga bokk ak studio bi. fa tabarakallahu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Mbaye waaye sama soppe sama mag Mouhamadul Bachir Ngom ak docteur nga xam ne li mbokk moomu seede ci moom laay seede ci moom man sama kilifa la ndax ñoo nekkoon ca Égypte fa tabarakallahu muy borom xam-xam di ndokkeel sama rakk jooju sama doomu bàyyi Alhaji Ousmane Ndiaye waaye di ziare xalifa bi Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak sama wayjur sama sëriñ Cheikhul Xaaji Malick si Maodo ak mboolem njabootu Cheikhul Xaaji Malick mu mel ni question bi ma dégg nga laaj mbokk yi ci wàllu burdo xam naa damay sof rek ndax lu bari ñoom wax nañ ko ndax burdo am na ñu ko tuddee bur'a awil kawaakibu durriya ci mat xayril bashar ci ko taalif égyptien la bu tudd Mouhamad ibnu Saïd al Busayri ci septième siècle hijriya woy wi nag dafa am lu muy jàngale lu am solo ci wàllu éducation ak roy yonent yàlla Mouhamad ci ay jikkoom ndax ki ko taalif ni docteur Bachir wax nitu yàlla pire la te su ma ñëwee ci li tax Cheikhul Xaaji Malick tànn ko da nga xam ne Cheikhul Xaaji Malick tabaarakallaahu ku am mayu yàlla la ku am jagle la ndax bu soy yu muy dug ci jaam jullit la ci tariqa Chaadali yu la bokk sëriñam mi ngi tudd Abul Xasan Chaadali ma nga ci Égypte ci dëkk bu ñuy wax Iskandariya quartier ba mu nekk ma nga tudd Al Muntaza man mii di wax ak yow dem naa ba ca raw doom waaye wilaaya gu mu amoon moo tax jumaa jiñ def sëriñam ci fonde tariqa chadaliya ak rawdu biñ ko rob ñoo jàkkaarloo boo fa demoon bésu ajjuma dangay ngay yi ngir barkeelu ci burdo biñ def dañuy jël naana sax di ko sëpp ci rawdu bi pour man koo naan di ci barkeel xasida boobu nag Cheikhul Xaaji Malick ci grandeuram ci xam yàllaam ci bëggam lu baax ci xenk lu baax doonte taalif na ci siira loo xam ne nii nañ koy waxee leer ga ba dugal yonent bi ci bàmmeel mu ne man kat naa jéem roy mag ñi ma jiitu woon te amoon cër ci bëgg yonent yàlla muhammad ndax bu sëyri li ñu nettali mooy géntam googu imaam imaam boobu toog di imaam Jabel Koyaate doon nettali nga xam ne ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo mu jaradu feeñu boobu rek mu feeñu yonent bi feeñu imaamul Busayri ci la Cheikhul Xaaji Malick taasoo barke ci loola jël xasida bi nga xam ne léppam yiw la comme ni ko imaam Bachir waxee du gazal mais nasib la ndax dafa am lu ñuy wax gazal am lu ñuy wax nasib nasib mooy ngay jooy ay ay ay ay yoo xam ne nii kenn nekkatu xazal nag mooy ngay tudd ay taaru jigéen moom la arab ba naan zikru maxaasini nisa huwa al xazal amma nasibu fal bukaa ala talal bu sayru yu dafa jóg rek seet gent yoo xam ne nii am na soppe bu fa nekkoon mu jooy béréb yooya ci la commencé xasida bi waaye Cheikh Hadj Malick comme yarkat la te xam ne ni nit pour nga defar ko il faut nga defar ruuxam moo tax mu jël waa bu burdatul bu soyis bi commencé ko ci bunt bi nga xam ne kuñ ko firil waxal la ko danga nga yaraat sa bakkan delluwaat sa bopp ci yàlla te xoolal xaaji eh, xaaji eh, pap cheikh xaaji malik bi mu bindee xilaasu dahab ak li muy rëy rëy yépp daf ne mankat kat bu doon bindkat yi ñi passé su ma leen comparer ak man Cheikhul Hadj Malick ñoom ay gëleemi naari góor ay fasi naari góor lañ waroon man alxaaji Malick ma war benn kiléem gu ñuy wax ibnu labon buy soog a fer kon ñi war fasu naaru góor nag ci takk yonent yàlla Muhammad ñoom a raw noonu la waxee moom Cheikhul Hadj Hadj malik ngir modeste ak wàcc boppam ak jox ñi paase cër kooku nag bon kuy roy ci moom danga nga bàyyi xel ne kii bi di téere bi leçon la ci Cheikhul Xaaji Malick jàngal na nangalal ñi la jiitu ca lañ def ci lu baax du yàq ci sax mbaax dara fa tabarakallahu lii rek laa doon nuyoo insha allahu mm-hmm. xam naa xasida bi li ci nekk ci ay bunt kenn xamul nu mu ndax fukki bunt la mm-hmm. te te nasib boobu moo ca jiitu mm-hmm. ba ñaareel mu mu mu mooy tandikuloo bakkan taxdir minal min hawa nafsi soog a ci li nga xam ne moo ko tax a jóg tagg Seydina Muhammad soo xaaji Malick bëgg ah, ah, ah. bëggal lu baax taalibe yi fukki fan yi bu ñëwee mu jël buntu par buntu pour nit ñi seen cofeel yokk waat ci Muhammad mi nga xam ne sama sëriñ ba Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo ba mu koy tagg def ne inna tabiata kullaha hiya nazmatun قدسية زقت مع الألحان بقدوم طه خير من رؤت أشرى وتكحلت بقدومه leer na rafet na macha ñu ngi lay gërëm ci li nga ànd ak ñun ku wax daal burdu wax ay buntu te buntu yi dañu koy bàyyi ak docteur ci kanam. Mm-hmm. mu mu faram-fàcce ko très rapidement waaw mais Aziz. Mm-hmm. comme dañoo bëgg tey mu euh, mu leer si bopp Sénégal yu bëri rawatina xale yu ndaw yi. dañuy dégg souvent xëy na burdu bi ñu xam mm-hmm. euh, kii dama bëggoon taxaw ci euh, imaam tuuti imam euh, doo mag xëy na bokk nga ak génération bu bu ndaw bi alors boo doon wax ak communauté jeunesse bi par exemple nga leen di wax lan moo la marqué ci Bourdi bi lan lay doon comme anecdote loo xamante ni dafa la marqué ci li nga fekkee gum ci sa dund ci ci wàllu Bourdi waaw li ma ci marqué mooy euh, nit da ngay wax ci li nga fekke bu ma shahidna illa bi ma alim na hmm. mooy Euh, juddu rek fekk ku ñuy wax alxaaji Abdoul Aziz Sy ndax moom la ñu bokkal jamono mm. muy génn di jàng burdu di ko jàng ci anam air boo xam ni air bi même boo xamul lu muy tekki nga nekk ndaw mm. taal sa télé jàkkaarloog alxaaji mu nekk mag di ko jàng loolu foog naa booy ndaw dina la dina la marqué lool lool lool ba dangay dem sax ba boo xamul Busayri boo xamul histoire Bourd boo xamul dara ñun ba ñu ne xale dañu jàpp ni Alxaaji Abdul Aziz Si moo bind Bourd moo ko moo ko bind moo ko way léegi loolu dafay interpeller li sang bi wax léegi ki dugg mooy tabe ak mbaaxu Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu parce que Alxaaji Malik nag wax dëgg yàlla nitu yàlla la euh, la shakka fii nitu yàlla la bind na ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu chiaru muy muy muy wàllu poésie wàllu prose bind na ci wax ci yonent bi sallallahu alayhi ci fukki baxru ak juróom-ñaar yi am yëpp tagg na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci taggin yoo xam ni man jàpp naa ci lu dul taasub ci lu dul parparloo que am na way yu mu way sax moo gën a rafet li Buseyri way waaye dafa am lu ñuy tuddee contexte dañu dañuy dund dëkk bu tudd Sénégal Cheikh El Hadj Malick daan wax ni afdalul ilmi ilmul haal man su ma doon qualifié Cheikh El Hadj Malick ak ci ci ci ci ci ci wàllu euh, wàllu taxasus dama naan euh, maanaam sociologue la dafa xamul réewam parce que boo boo jàngee ba noppi nag fokk nga xam sa réew mooy ñan sa askan sa askan mooy ñan mm-hmm. xam nga dafa doon Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiallahu taala anhu euh, am na ci benn bayit muy way yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci abada buru di wax ni wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara donc mu doon ñaari aspect ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam bële Cheikh El Hadj Omar doon na ko ci daan jihad bii Cheikh El Hadj doon na ko ci jihad boo xam ne c'est pacifique moo tax muy andi buddu ni weer wu tero nañu tagg yonante bi sallallahu alayhi wasallam donc am na lu ci Cheikh El Hadj Malick mooy lan effacé na boppam mais mujj na yàlla feeñal ko ci lan jëlul ay mbind mu wane waaye jël na mbindu keneen wane waaye terewul ku ñuy wax Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu jàkk yëpp di burdu mawlaay salli salaatu yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàng nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay wax ni amul benn jëf bu yàlla sant nit di ko def ba mu des julli ci yonent bi yàlla du aj màkk du natt du du woor du def du julli te moo ñu ko sant mais lenn la ni maa leen ko sant jiitu leen ci muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoola mawlaaya yàlla yow mi ñu moom binduñu mm. salli yàlla nga julli wa sallim tasalman ala habibika ci sa soppe ba julli boo xam ni daa iman daf fiy sax abadan mooy lan yow xaaj papis benn yoon bi ngay wax moo mawlaaye salli wa sallim daa iman abadan mooy lan sama salaatu ak salaam bi même bu ma fi jógee ba àdduna di tukki chaque seconde ak chaque cars yàlla yàlla nag may bindal sama salaatu bi nga xam ni maa ngi ko wax tey bésu alxamis tey maam Cheikhul Xaaji Malick jël loolu àndil ñu ko foog naa euh, tabeem boobu ci daraja ak xam ni moom xëy na wolof bu fekkoon moo andi mbindu boppam dañ naan alaaji Maalik a ngi wane boppam. Mhm. mu effacé wu andi mbindu keneen. waaye terewul yàlla feeñal na. yàlla feeñal na alors. Euh, Papis dama dama lay dama dama lay njëkk sama consultant nga waaye invité nga am en même temps <laughs> euh, Abdou Aziz balaa may ñëw si euh, professeur Ousmane Ndiaye Abdou Aziz yow Tiwaawoon nga mooy sa dëkk. burdu bi tàmbali nga xam Tiwaawoon macha allah xamit cosaanu Tiwaawoon xëy na dama bëggoon xëy na Tiwaawoon. am na ñoo xamante ne gàmmu jur gàmmu gi la ñuy dem gàmmu ji wala gàmmu gi leen fay yóbbu te ñu xam ne am na lu ko lal muy burdu bi ak solo bi lan muy relation waa Tiwaawoon ña fa dëkk juddoo fa ak burdu bi contexte bi est-ce que bu muy si wax tuuti Tiwaawoon tey jii ban melokaan lay am ban sensibilité moo fay am au-delà du gàmmu xam ne si li ñu mais xam nga papis boo waxee Tiwaawoon da ngay wax pays mm-hmm. dëkk boo xam ni dafa amoon ñu fa nekk ci wàllu aada ak cosaan ñoo xam ni ñoo ko yoroon ci wàllu ak cosaan parce que maam Seydi Hadji Malick dëkkul Tiwaawan ay nit ñoo doon wax bëgg ku leen jàngal alxuraan am ku leen ko tegtal ñu indi ko fa ñëw na fa plusieurs fois avant mu fay ñëw di fa toog kon bi mu fay ñëw fekk na fa ceddo yi fekk na fa géwël yi te li gën a marquant ci li maam Seydi Hadji Malick def mooy fii mu dëkk dégg nga ci olof yi ñuy wax ku le xaman jaalo da koy dégg lu bare bare jaan mooy koñ bi nga xam ni ay géwal ñoo fa dëkk moo jàpp ci diggante boobu la def koñ jàkka ci diggante ñaari koñ yooyu ci la def foofu la nekk mais fekk na fay ñeneen fekk na fa ñoo xam ni ay yeneen ci yeneen i tare xalandoo Cheikh Yirim Ndumbaan bi ngay dégg Seck mi nga xam ni moom la ñuy wax wàllu yu Cheikh Saad Abi fi mu dëkkoon ak financé de Hadj Malick dëkk matul dix man nga di génn tuuti gis kër Cheikh Mourou bëggee mi fa nekkaloon Sëñ Tuubaa donc tu vois bi mu ñëw. Mhm. mais contexte bi ëpp solo moo di fi mu Maam Seydi laaj Hadji Malick dëkk ci Tiwaawan muy dëkku pays muy ay ceddo ay mag nekk fa lislaam xaw fa tumuraanke mag ñi sax nee nañu julli na fa benn bis it nit tëgg na dem ni ku El Hadji Malick jiite amoo julli gis nga contexte boobu mu mu nekk mhm. mu samp fi Zoya. di jàngale di indi mag ñi di jàngale mag ñi nee nanu mas nañuy julli am koo xam ne dafa naan sàngara di fëgg bunt yi di fëgg seng bi ñu doon bi ñu julle mm-hmm. mag ñi dajaloo ni ko kii bàyyi ñu mu ne déedéet ku ma war lu war ci yéen ni ëllëg yàlla mënu koo nattu nga nekk fa nga nekk place moom mu ñëw tooge fii comme bu ko bu ko dóor mm-hmm. ñu teg ci semaine mu ñëw bokkaat dekk ci biir sàppe si kon dafay créer sociabilité bu nga xam ni ak askan yu mu nekk ak fi mu nekk ndax dëkk fa dafa ñëw da leen di créer situation boo xam ne dañ koy de sympathie parce que dafa neex a dafa neex a dafa neex a jàppee d'abord kilifa la gu am xam-xam beneen bi ci des liy attiré nit ci nga déglu muy wax mooy baat bu ko yàlla may daf ko mayoon kàllaama baat bu neex sama papa nee na ma bu daan julli ci jàkka ji dem na ba dootul julleeti dootul jiite ndax mag ñi duñu teewlu ndax baat bu neex donc mu ñëw ci contexte boobu fekk fi ay ay ay ay ceddo fekk fi ay géwël mu bëgg leen a indi ci li mu nekk te bëggu leen a forcer pour ñu ñëw ñaar boo bëggee ni toppal danga ko koy defal danga koy bëgg am njariñam ba pare nga nekk nitu jàmm nga jàmmal ko te ñett yi bu ci nekk maam Seydi Hadji Malick séq na ko ak mag ñi fa nekkoon bu buur burdu amee rek bu jotee rek mu prépare waa Tiwaawan ci waxtaan ci message yi muy jox ñi fiy ñëw di ma fekk si seeni gan lanu di di ubbi kër yi defar néeg yi bale ko jox leen ñu dëkk li ngeen am nga bokk ak ñoom ci wàllu dund booba jamono neexul booy ñëw noo am looy indi wala la nga indi kër ga ngay dal da ngay dalay am na kër yoo xam ne ba tey ña fay dal ma njabootu Seydi Aj Malik ñoo leen fa yóbbu boo demee ci kër yi kër yi ma fa xam Cheikhul sëñ Babacar da daan wax diw yóbbu leen ko kër diw diw yóbbu leen ko kër diw sëñ Cheikhul xaw mi ñëw diw yóbbu leen ko kër alaaji mbay diw yóbbu leen ko kër diw ba nëga ni kër yi ma lay wax nii suñu kër ci la bokk ay nit ñoo xam ne danga ngaa judd rek fekk ñu fa seeni maam daan fa dal ñoom ñuy ñëw di fa dal muy muy droit légitime muy droit légitime fi mu ne nii ba pare man jox la ordre ñii fi ñëw di fi dalkat bu kër gi avancé ñaanu maam Seydi Hadji Malick tax mu avancé. bu nu ñëwee ni ngeen génn am na ci mag ñoo xam ni sama papa ci la bokk dana wax fii ma leen rëddal ak ku mën a am xaalis ak loo ko mën a def bu gàmmu jotee na nga génn ay gana fi ñoo fi dal te ñi fi dal mooy waa kër diw ak diw mais ñu aussi dan naan kuy dem Tiwaawan te daloo kër sàngam gama dala dal yàlla boo àgg Tiwaawan xam nga dafay indi bokk ngeen xamante di jariñante parce boo amee sa téeméer di ko ganale sa mbokk mu ñëw indi la ñaar ñaar dërëm dimbali na la moo tax sociabilité boobu mu indi diggante taalibe yi ba ñu xamante mooy fas kóllëre parce que di ngeen am ñoo xam ne bokku leen fenn bokku leen ci aadama ak aw pas pasa leen boole ngeen tuddante doom mayante ay jabar te loolu Seydi Hadji Malick ko ko def moo ko def donc sur le plan social loolu la indi pour woon nit ñi ni mën nanoo ànd nekk benn ci ay wuute dëkk ak ñoom ànd ak ñoom ñi mayante soxna ay taalibi yu xamante wul bokk pas-pas rek. Mhm. tax ñu jige ci ak woowu. voilà sama sama sama consultant mais dama koy transformer parfois invité euh, parce que il est transversal il est intéressant alors euh, professeur Ousmane Ndiaye dama amoon laaj laataa ñu delluwaat si docteur euh, wàllu burdu bi ci wàllu ndaw yi laa bëggoon ñu nga nga may ñu si tuuti xëy na dan lañ ko war a jëriñoo ba xale yi xëccoo kook mag ñi parce que dafa mel ni dañ ko xaw a trop dafa nekk yëfu mag trop. te lu baax la njëriñ bi dèjà boo ko mënee brosse mais naka la ñuy def ba ndaw si xale yi xëccoo ko ak mag yi burdu bi ndax njëriñ bi ci nekkee na. waaw fa tabaarakallaa xanaa xam ne boo xoolee sax baatu burdu nga firi ko scientifiquement 70 pour cent jeunes yi la gën a arrangé parce que ñetti lettre la baa ak raa ak daal léegi ñetti lettre yëpp ñetti signification yi mu am 70 pour cent ci ndaw la gën bi si njëkk mooy sedd lu sedd. lu dal jàmm lu calme. Hmm. muy barde maanaam stabilité ndaw ko gën a soxla ñaareel bi mooy li ñuy wax habillement ku la gis respecté la colin bi colin bi hmm. correct ndaw la gën a jig ñetteel bi mooy ñu tappal la garaat ndax prouvé nga ndaw la gën a jig ndaway jàng pour am diplôme ndaway liggéey pour am nangam hmm. léegi ñett yi nga xamante moom la baat bi di firi nag yëpp dafa daje ci téere bi mais boo xoolee ñett yii nii moo tax Seydi Hadj Malick tànn burdu bi ñetti aspect yi premier aspect bi mooy burdu dafa nekk plat d'entrée ci añu gàmm hmm? ndax am na yenn façon lekk yoo xam te ni boo ko wutulul plat d'entrée bu ñëwee mën na laa gaañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisu juddoom anwaar leer ya ay jóge soo si duggee brusquement mën na la gaañ mi ngi mel tey sedd bu doon ñëw papis day xëy xëy rek sedd bu ñëwee ñëpp feebar ñëpp dee mhm. day annoncé bu ndaw ba sa température tàmb ko mhm. sedd boobu leeru yonent bi ko ëpp doole nuurun axaata biil anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kullal xalqi yàllaahu am na foo xam te boo fa dee dugg da nga da bi bu dee fubal ci biir match bi mhm. da ngay tëb tëb ko remplacement du def dara day échauffé wu ba tàng doo ko dugg mën a prouvé kon burdu plate d'entrée la échauffement la pour mën a mën a mën a jariñoo bisu gàmm gi mooy premier aspect bi ñaareelu aspect bi mooy dafa am ñaari jikko yu Seydi Hadj Malick di jàngale yoo xam ne moo yor stabilité réew réew mu amul du dox mooy tolérance ak acceptation parce que réew mënuñoo bokk gëm-gëm mënuñoo bokk opinion mais il faut ñu am acceptation man murid ma nangul tiijaan bi man ma nangul papis koo xam-xamam mu reconnaître ma ba pare ñu am tolérance léegi esprit acceptation ak esprit de tolérance mooy burdu ma defar téere boo xamante ni trente bëy trente bëy la yow nga defar dix ma gën laa siiw man lañ gën a gëm. ma am honnête luy béy tey il faut mu leer chapitre chapitre waaw il faut muy leer tey lu ma ah. bëgg il faut affaire di leer boo dee béy ñu mel ni man. <laughs> mooy mooy chapitre. Ah. xam nga tey. vers vers ver waaw vers vers. Hmm. c'est-à-dire tey yow Papis nga toog en tant que borom xam-xam prouvé. jël sa moroomu borom xam-xam defal ko promotion loolu ak honnête la te mooy tax réew jàkk réew baax. nit war na ma intellectuel tey man Ousmane Ndiaye mën naa waxtaan ci Seydi Hadj Malick ba mu jeex du ma blessé murid bi murid bi war na mën a wax ci Serigne Touba ba mu jeex du du blessé Tidiane bi maanaam esprit acceptation ak tolérance. ak complémentarité bi am diggante par exemple euh, murid ak ak ak. Tidiane waaw complémentarité. loolu la la bëgg a jàngale mu jël imam Boussiri bokkul ak moom tarixa bokkul ak moom der mais prouvé na ba yonent bi tamponeel ko mooy ñaareelu aspect bi ñetteel bi moo si gën a doy waar te ndaw leneen nag war na koo bàyyi xel xam nga mooy lan mooy ndaw saa yoo xëyee gëstu fu mbaax nekk nga dem jëli ko donte ki yor mbaax bokku leen gëm-gëm bokku leen pas-pas mais jëlal mbaax ga alxikmatu daalatul mu'min man su ma amee question boo xamante ni Ousmane Ndiaye moo ko xam ma fekk ko ci baar bi mu nandi baaram ak mandem bu ma intéressé naa jël xam-xamam te bàyyeekook jikkoom te ñëw waaw pour ma bañ a guddal xam naa. vas ah, ah, ah, li ma li ma a wax mm-hmm. Mm-hmm. ci loolu laa laa laa bëgg parce que euh, préparation bi ñu def ci ndaw ñi. Mm-hmm. boo demee euh, ci ci ci ci jàkka ji. dañ koy dañ ko distribuer mu mel ni ci loolu ñu def xale ya nekk ca daara ja ci loolu lañ leen tàggat pour ñu ñëw ci burdu pour man ko xam parce que ñëpp koy wax ñëpp koy woy ñu yéen ñëpp yor seen téere yor ko donc ci ci li mu bëgg indi ci defar jikko jikko nit mhm. pour préparer ku mën a jaamu yàlla mhm. fan nga ñuy génneel foofu pour ñu mën a xam juste sensu message bi léegi sensu message bi mooy boo xoolee burdu ñaari bunt yi si njëkk mooy defar nit première bunt bi mooy bëgg ñaareel bi mooy canaliser li nga bëgg ñaar yi fu mu amul du dem bépp métier booy def te amoo ci bëgg-bëgg da ngay échec togg sax boo ko bëggul du neex. muy passion li tubaab passion ah. mm. ñaareel bi mooy foog nga maîtriser sa bëgg-bëgg oto bi neex na ma lool waaye moom ma ko naa maîtriser sama bëgg-bëgg ba du ma ko laal. ndaw si rafet na lool neex na waaye naa maîtriser sama bëgg-bëgg ba duma ko laal ñaar yooyu mooy sens bi nit ki di war a jàng ci burd mm-hmm. mooy fexe ba lépp looy def nga bëgg ko. mais tamit nga fexe ba maîtriser sa bakkan ba li nga bëgg bu yellawul ak sa diine ak sa ngor ne ko fa ñukk pare naa mais Papis <laughs> j'ai un problème ak ak Bachir. ak Bachir waaw j'ai un sérieux problème. parce que man <laughs> Papis. il sera résolu que tey moom bu ñu fi génn day nañ. day leer waaw j'ai un que. Euh, Bourdieu li mu wax ci vers yi mu indi. buñ ci préparation ndaw ñeeg jikko yu mu bëgg nga am et tout ça. mais boo ko boo tegee Bourdieu teg xilaas xilaas. mag ñi nee noonu sëñ Ibrahima euh, El Hadj Ibrahima Sakho sax laay wax nee na ku fanaana moom na jàpp ni fanaan nga ak yonent bi mais mu teg fa lépp ak li xilaas amee importance mais lan la ci jublu ci wàllu woowu. Abdou Aziz luy xilaas luy xilaas. xilaas xilaas. il faut que nit ñi comprendre parce que day bis si borom xam-xam day yomb si ñoom mais. Euh, xilaas luy xilaas. na bàyyi Bachir mu génn. maanaam xilaas xëy na du tax moo tax ñu jóg. Mm-hmm. xilaas mooy. cheikhul xaaji malik radiallahu taala dafa fekk ñu bind ci cheikhu ci maulana rasulillah lu baree baree bare wuute yu bare am ci mu jël ko segg ko comme ni tëgg bi di segge or ba nga xamante ni or bi buñ ko tegee lu dul or bi ci bokk mu nekk benn or lu dul benn qualité lay am loolu mooy xilaasu zahab noonu la def euh, li nga xam ne mooy histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko buy fukki bunt ak euh, xam ma fanweeri bunt mais euh, Cheikh El Hadj Malick la tax gàmmoowul xilaas Cheikh Xaj ma defar na téere tudde ko gàmm hmm. waaw muy nu niya hmm. riyu sam'aan fii mawladi xayri bani adnaan téere boobu la def tudde ko gàmm maanaam lii nandal ñi nga xam ne ñoo maroon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak juddoom hmm. noonu loolu téere bi tudd mais téere boobu fokk nga boole yi may bëgg a wax pour man ko jàng man jàngu téere bi may wax te mooy burd ab ingénieur dañ lay liggéey ingénieur bu buggee tabax dafay gas di gas di gas ba yëg ni suuf si dëgër na muy soog a teg ciment ak fer ak brique. Hmm. loolu moom nga doon fekk euh, Descartes doon ko def la philosophie cartésienne. Hmm. boo demee noonu nga fekk loolu doon def. moontit boo demee alxaaji Malik radiallahu taala anhu moom itam noonu la doon def ci nuniya euh, Muhammadul Busayri noonu la def ci ñaari bunt yi maanaam di gas ba yëg ni. dëgër na muy soog a andi ni yonente bee gën ñëpp dafa gas ba mu dëgër maanaam nit ki la ñoo wàlli li woon ci moom ay xalaat ay bugg-bugg ay jëmuwaay yëpp mu wàlli ko di ko dindi bu mu set wécc mu ne ko nag tey maa ngi lay soog a man sol ni kan moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Al Hadj la def moo tax ci commencement bi moo wax ni kenn ci ñoom xasalul alxaaji alxaaji. maa ngi koy gërëm Ousmane Diaw mm-hmm. sama rak sama xarit sama lépp junjee na ko kooku la ñuy wax nasib maanaam euh, dafa am kàddu yoo xam ne ki koy yëkkati kemtalaay ni mu mel noonu ngay tuddee kàddu yi am na koo xamante ni bu yëkkatee kàddoom kàddu ga euh, bu rafetee rek ñun dafa doon way waaye yonente bi xam nga wax na ay way yoo xamante ay kàddu yoo xam ne dafa rafet ba ñuy defe ne aw way la te du way. du way moom du way yonente bi way mm-hmm. kon bu ko defee léegi euh, li nga xam ne moo ci am mooy ñoom dañuy fekk li nga gëm comme decarte ni mu la doon wax ni jàpp nga ni lii ndox la mu ànd ak yow ba yow nga gëlëm nga dem ba mu wax ne yow est-ce que mën nga ma ràññeel diggante nelaw ak ñàkk nelaw ndax loo gis ci àdduna rek ak sa bët mën nga gént gis ko lan moo lay weer leeralal ni yow yaa ngi nelaw fi nga toll xam nga loolu Descartes mu ngi koy wax naan jàppal ni ma nelaw na dem na mais fi mu demee ba yëg ni léegi mën na am suuf su dëgër mooy maa ngi yëg ni maa ngi xalaat kon maa ngi fi indi la seytaane loolu daa ñu wax euh, bokk yi gëstu tout le temps Descartes Imam Ghazali jiitu na ko juróomi téeméeri at mhm. te mbooleem Descartes pas yi mu def pas philosophique yi mu def ba bala muy am solution Euh, imaamul Ghazali jiitu na ko ci même pas yooyu boo ko seetee moom la ñuy def moom la Cheikhul Hadj Malick def ci Nuuniya moom la Cheikh Mouhamadul Bousayri def ci euh, def ci. Burd li mu njëkk xajabem tudd na ko léegi. amin tadakuri jiiraanin ndax léegi fàttaliku ay dëkkandoo rek yoo xamante ñoo ngi nekkoon plateau war na tax ngay tuur say rangoñ. yematul ci ay rangoñ mais rangoñ yoo xam ne dafa ànd ak deret ndax jar na ko jàngalekat la parce que euh, ki ëpp yi ci ñiy jàngale mooy ki tàmbalee ay njàngaleem ay question kon téere bi ci loolu la tàmbalee amin ndax jar na ngay fàttaliku rek ñoo xam ne dañu dëkkoon palaatoo nga fàttaliku ni yaa dëkkoon ak ñoom rek sarangooñ di wadd ba yëg ni mu ngay ci jaxasoo ak deret kon jooy metti na donc moom waxul woon loolu li mu doon jublu mooy makkaat makkaat medina la fa nekk ci ay xeer la fa nekk ci ay barab la fa nekk ci ay leer la fa nekk ci ay tedd nga xam ni boo fa tabbee comme ni ngeen dégg Maulana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz si buy wax Daarul Habibi hmm. téere boobu nga xamante ni kenn ku nekk da jàpp ne Al Hadj Abdoul Aziz si moo ko way te wuyu ko waaye moom ñoom baayam ni mu doon def noonu la def Cheikh Al Hadj Aziz téere boo dégg muy way rek bu koy wayantoo rek. woy ko hmm. benn téere bu mu bu mu taalif dégg doo dégg mu woy ko benn laa la wax benn du daarul xabibi du leneen kon daaral xabibi bii moom woy ko déedéet génn nitu yàlla moo ko way donc téer bunt bu njëkk bi ak bu ñaareel bi xoolal ci biir pour pour mu pour mu génn ci bakkan dafa jekk mu jëbu ni ko wa nafsu ka tifli in tuhmilhu saba ala xubi radaai wa in taftimhu yanfatimi hmm. nee na bakkan li mu tàmm rek xaj Ousmane Touré léegi cigarette ki ko tàmm li fee taxawul du ko bay am na yu bari doomu aadama tàmm ñu naan dañ koo liggéeyee dañ koo xabtal fekk bakkanam moo ko ci dugal mu ni nag sax mu dem ba àgg ci bi muy wax naan bakkan sama bakkan bi nangam sama bakkan bi nangam mu dem ba àgg ci ni xam naa dem daal euh, bakkan ak xale bu tuuti ñooyam doo gis xale yoo xamante dañuy dem ba am ba am trois ans am quatre ans ñu leen di jox ay bivon ñuy ñuy ñuy ñuy namp ñuy namp seen i ci ci ci digg bëccëg bi dafay am parce que dañ ko tam daa gis xale boo xamante ni maanaam lay fekk mu tëdd rek mu commencé namp dañ ko feralul donc imaamul Busayri pour mu feral bakkan ba nga xamee ne dana man sotti ci moom leeru sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam leeru alquran jukkay sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax dana ñëw ci kanam moo tax mu daal di indi ñaari bunt yooyu def ko laytaay donc li ñu bëggoon wax mooy kon waxuma ñu ñaari bunt ñaari bunt mu des ñaari bunt fukki bunt la waa léegi dama bëggoon léegi dama la bëggoon wax ni uh-huh. kii mas jaar ci ndaw mm-hmm. man bu sëy mm-hmm. mas jaar ci ndaw parce que dañuy wax ni ay waajuram dañ ko teel a yar teel mokkal alxuraan teel jàng ñu teel ko teg ci loxo abul abbasil mursi mi nga xam ni jaar naa moom fu nekk xaji euh, euh, xaajil euh, Ousmane Ousmane junj na léegi mm-hmm. maa ngi nuyu alxaaji Ousmane ñan bu bu bu fële maam Ansu nga xam ni yàlla dogaloon ñu ànd fa ziyaare ji ko muy li ñuy ziyaare ji Mouhamadul Bousayri mi ci Alexandrie hmm. maanaam euh, góor googu dafa fekk ni buñ ko doon jàngatay maanaam euh, ci ñaari ñaari buntam yii ma tudd rek laa la wax hmm. doyoon na sëkk burd doyoon na sëkk gàmm parce Euh, ma nitu yàlla yi dañu naan nit ki li fekk futti woo ko ba mu set sang ko bu ko solol ay yére moom la ñuy wax hmm. taxalli wa taxalli hmm. maanaam tey xaj Ousmane tudd na sànq wala cofeel nit ki bala nga koy buggaloo nangam wutal ko loo teg ci wetam loolu ñoom loolu lañ doon def futti nit ki bugg àdduna bugg jël jël say xalaat teg ko ci doomu aadama jël say xalaat teg ko ci ay objet hmm. mun la remplacer yooyu yëpp nag bëgg Seydina Muhammad waaye loolu mën loo ko defal nit. Mhm. te wulli maanaam wulli ko. maanaam ñu koy waxee. wulli pas wulli mais euh, kii déedéet li ci biir ngay dindi. yulli yulli da nga koy yulli. ba mu set wicc nga ciy soog a mën def leer donc moom loolu la tàmbalee Cheikhul Hadj Malick noonu la tàmbalee. Mhm. Imaamul Ghazali noonu la defoon. Descartes noonu la defoon ab ingénieur it noonu lay def pour leeru yàlla leeru yonent bi doon ak ce qui alors dañuy ñëwaat. ndax docteur dafay yëkkati niveau bi ba. waaw ah <laughs> macha allah ah alors dañuy ñëwaat euh, ci lu gën a laaju citoyen simple jullit par exemple euh, ci imaam euh, Jabel Kouyaté. Mm-hmm. burdu dañu naan burdu bi tàmbali na Tiwaawoon est-ce que burdu Tiwaawoon kese la mën a am mën naa am feneen kan mu war a burdu fan la ñu war a burdee. ak ban moo si baax ak ban moo ci gën bu fekkee am na. waaw jërëjëf kooku laaj bu am solo la. xam nga <laughs> benn weer weer bi ñuy séentu bur mhm. mooy weer bi ñuy séentoo tabaski mooy weer bi ñuy séentoo korite. waaw wala déet. Mhm. weer bi la. Mhm. amul ñaar amul ñett. Sénégal di nga gis ñaari e, e, tabaski. waaw wala déet. di nga fi gis ñaari korite. te weeru gàmmu mbiru jullit ñi la. mais mosoo gis xëccoo am ci coow yi ci am yëpp kële nee na non suba la kii ni gannaa suba la parce que cëru Cheikh Seydi El Hadji Malick la te li ma wax euh, par parloo taxul ma wax mais lu am la loolu ñëpp mën a duut seen baaram loolu nag dafay wane cëru Cheikh El Hadji Malick digganteem ak yonent bi sànq dafa am baat bu sëñ Abdou tudd bu ma neex honnêteté intellectuelle mm-hmm. amaane almiya moom Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu lii yëpp dafay wane amaana ilmiyaam ak nangu gis nga xilaas li muy yaatu yëpp xilaasu zahab boobu mooy miimiya bi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tudd xilaasu zahab am na benn bayit boo xam ni xam nga su fekkee da nga jël bayitu bayit mooy vers ah, dugal ko ci sa poésie te tàgguwoo ka maanaam ka moom bayit ba dañuy wax da nga def plagia ah? waaye maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu mënoon na tudd bayit bi rek ñun suñu njàng ak suñu gëstu du àgg ci ni di woo wax bayit ba hmm. waaye moom non seulement dafa tudd bayit bi ba pare ni diwa ko tudd ba noppi ñaanal ko ci biir way bi. daf ko cité. cité ba noppi cité cite la source. voilà wax ba pare fait de citation mooy. wax li kii wax ba pare. daal di tëj mooy probité intellectuelle. Mm, très bien muy fal urbu xayru unaasin summa xayruhum quraychuhum wa huwa fiihim xayru xayrihim Abdourahman al Andalusi moo ko way way ko ñaanal ko ni kii daal yal na ko yàlla fay fay pay moo xam ne du am fu mu yem. kon ni maam Cheikh El Hadj mel njëkkeewul ci burda beneen bi ci des mooy laaj bi nga laaj muy burda bi nga xam ni tey ñu ngi koy jàng ñun à travers tout le Sénégal su ñëwee ñëpp dañuy déglu Tiwaawoon ni léegi ndax weer wi feeñ na kañ lañuy tàmbali kooku mooy benn ñaareel bi ndax foofu rekk lañ ko war a defee waaw waaye nag ndigal bi mi ngi ju mi ngi juge Tiwaawan di tas ci réew mi fii ñu toll nii yaa ay vingt ans ci ginnaaw wala trente ans ci ginnaaw Tiwaawan rek lañ daan burdaa ak ci yenn ci jàkk yi mhm. waaye nag dem ba mag ñi gis ni war nañ mën a décentraliser mbir yi ba tey am na ay burdu yoo xam ne boo boo boo boo àggee biir Tiwaawan ñi yor comité scientifique biir Tiwaawan dañuy décentraliser ay burdu mhm. dina am Mbàkke dina am fii dina am fii léegi waa Tiwaawan borom xam-xam yi dañuy dajaloo kat ni yow la ñu yónni fële yow la ñu yónni fële ba à l'extérieur adduna wépp ñu ngi fay burdu mm-hmm. grace à Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu taala anhu donc burdu bi ba ci jàkk yi man jàkk ji ma ne dañuy burdu ñu jàkk yi kële dañuy burdu jàkk yi kële dañuy burdu léegi nag mm-hmm. léegi ñu am benn système bu ñu tëral ñu ne léegi bu burdu bi bu ñu nee tëj bis bii la bés bii la Tiwaawan di tëj mm-hmm. veille boobu ñeneen ñiy burdu feneen ci adduna beeg ca Ndakaaru ñëpp ak ci à travers tout le Sénégal ak sous région bi ñëpp tëj seen burdu pour tëju burdu bi ñu dem tëjee fa nga xam ne nag ndigal bi fa la soqi ko dem Tiwaawoon dem Tiwaawoon muy Tiwaawoon ci dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick noppaliku ñëpp dem gàmmu ci kon su ma comprendre rek mooy mun nga tàmbali sa burdu sa bërëb bi nga dëkk bi nga nekk waaye ci euh, clôture bi clôture bi dañu souhaité pour nga ñëw Tiwaawoon waaw loolu mooy li gën parce que kër gi moom sa li gën mooy li ñu tëral mhm. li mu ci nekk dañ fa maanaam burde yi maanaam ñu di ko moomante quartier yi maanaam euh, quartier bi dafay burde bis bu nekk mhm. waaye dana am bis boo xam ne dañ ko fay fekk mhm. defal ko waxtaan koo xam ni waa kër gi ñoo koy désigné mhm. maanaam noonu lañ koy tëralee depuis jamonoy Maulana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Al Amin ak taxawaay ñu rafet ci gàmmu géeg amélioration yi mu ci def ci la ñu indi burde populaire maanaam fenn fu nekk ñoo ngi fay burde mais dañuy wut benn bis boo xamante ni ñooñu doon burtu daañu leen fa fekk noonu nag la ñuy bab bi ko ñoom ñëpp après comme ñu ko xajjabel waxee ñu ñëw ci Tiwaawan pour tëj burtu ñu bàyyi nga tëj ba pare avance ñu consultant bi di waaw léegi nag loolu dafay wane vision bi nga xam ni njaboot Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu am nañ ko ci wàllu diine ci wàllu budd bi nga wax ci wàllu jeunesse bi mhm. nga xam ne dina leen mën a tënk ci fukki fanu gàmm yu njëkk yi mhm. nga xam ne ñoom ñëpp dañuy dem ci jàkka ji miin mawlaaya même di nga gis ay xale yu ndaw yoo xam ni à mhm. partir air bi rek air bi même bu fekkee xamuñu lu muy tekki dafay doon benn chanson ci ñoom donc dafay dellu ci li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum radiyallahu anhu waxoon ni ñu ci jamono di tere nit ni ko bul def lu bon waaye fexeel ba occuper ko ci loo xam ne du ko tal. foog naa loolu la ñuy gis ci fukki fanu gàmm yu ah, euh, pour indi esprit bi. xam nga dal la bu ñu tëjee burdu bi ñu dem Tiwaawan. ñu mhm. ñii di ñëw Tiwaawan di burdu bu tëj bi. Mhm. noppalu suba ñu gàmm. Mhm. mais esprit approche pédagogique bi maam Seydi Hadj daf ci bokk ci bi mu formé mag ñi ba pare. ku ne def laa yóbbu ci benn gox nga nekk donc mu mel ni genre ñu baal ma ci baat bi atelier lay woote bisu gàmmu ñëpp ñëw sëñ Abdel Alamine daan wax naan daan wax naan mag mu am benn génn dëgg di ko wax ci génn guddi bu sañoon kuy njabootam fekk ko mhm. mu ni ñëpp ñi nekk ci gox yi mu leen yóbbu xam nga mag ñi def leen yóbbu ñii yóbbu leen euh, Jolof ñii mu yóbbu leen Saalum ñii am na ñu nekk Gabon am na ñu nekk Côte d'Ivoire ñu tas ci réew mi mu yóbbu leen ñu nekk ay mu xaddam mais ñooñu bu gàmmu jotee dañuy ñëw ñëpp Tiwaawan fekk si Maam Seydi Hadji Malick mm-hmm. muy nekk loo xam ni ku nekk da ngay indi sa réalité bi nga vivre nan la fa ñay pratiquer ak yan conseil yan orientation lay joxe donc approche pédagogique bi aussi bu def ci am solo papis parce que li tax mu xaddam yi ñëpp mu dem ñii mu jox leen ay waa këram ñu ñu ñu mu nekk seen soxna ñu éparpillé à travers le Sénégal mu benn bis boo xam ne ñëppay daje ñu ñëw waxtaanee li nga xam ne orientation yi mu bëgg rectifier parfois si la faut defe naa loolu ci la bokk ñu naan defe nangam defe nangam. approche bi defe naa loolu aussi aspect bu am importance la. ci mag ñi dajewaat ci moom. mu joxaat réorientation. indiwaat yeneen disposition ba pare ñu bañ a am influence extérieure. bu tax ñu bàyyi leen jàpp. def naa loolu aussi ci message yi la bokk. bu ma juumal alors euh, may fàtt nag temps bi daanaka dab nañu euh, te man damaa bëggoon euh, docteur continuer si bunt yi moom yaay tëj émission bi ci résumé buntu yi. li nga ci développé. ci ba waaw waaw waaw mu tëj ko. ñu def benn dañuy tour de table avant euh, docteur di tëj euh, professeur euh, Ousmane Ndiaye tëb burdu bi dem si gàmmu gi ndax link la lan la ñu war a jàpp ren ci gàmmu gi lan moo ci war a am solo si yow ci jàngalekat nekk julit en plus. waaw lan moo am solo ci gàmmu gi laaj nga laaj ba am solo parce que lépp loo gis si àdduna dafa am lu ñuy wax principe actif. Mm. principe active boobu bu fa xasee ba jóge rek amatul njëriñ. ma jox la benn exemple te boo ñëwee ne ma gis naa nit bu amul ay tànk dama lay gëm nit ko amul ay loxo dama lay gëm mais soo ñëwee ne gis naa nit koy dox te amul bopp duma la gëm kon principe actif nit mooy bopp <laughs> comprendre hmm. Hmm. ok kon tey gàmmu geeg gurdu geeg coow léegi yëpp lenn rek mooy principe actif bi mooy ñu bëgg yonent bi te roy ko bis bu ñu jógee gàmmu gi bëgguñu ko jëluñu si moom benn jikko mooy fausé nañ débat bi hmm. yow da nga commencé di jàng école tijji ngay jàng année ba mu jeex nga def examen war a def bac amuloo bac mooy kon li nga doon réviser guddi yëpp amatul njëriñ kon burdu yi ñu burdu si jàkka ji waxtaan yi palaato yi ñëw Tiwaawan yi bis boo fa jugee te amul benn jeexital bu mu def ci yow mm-hmm. rek ci ne mankat amoon naa benn jikko boo xam ne gis naa ne neexuma mhm. waaye fas yéene naa ci gàmmu tiwaan gi bu ma demee ma jaayante ak yonent bi salaa salaam ba bu ma fa jógee jikko boobu ma bàyyi ko waaye lan mooy lan moo ci rôle wala responsabilité jàngalekat bi am xam-xam ndax parfois nit war na mën na ñàkk def benn affaire boo xam ne xëy na ñàkk xam moo moo tax jàngalekat bi lan mooy rôle am ci ci li ngay wax nii ok moo tax yonent bi salaa wax ko nee na euh, société ña fa yées mooy ñi jàng te duñ wax dëgg moo tax Seydi Hadj Malick sax mi nga xam ne moo initié gàmb di ko jàngale daf am benn point bu am solo bu mu si wax dafa ne nañu fexe ba bu mu jéng jëm ci fo bu ñu fausé débat bi maanaam li tax a jóg jàmb bu mu am kon borom xam-xam bi jàngalekat bi li ko war mooy mu fexe ba yeewaat nit ñi gindiwaat nit ñi léegi nag dafa am benn cat boo xam te ni dafa dafa dugg léegi ci cérémonie diine Sénégal yi cat la bu si xaw a dugg si tuuti mi ngi raam di ñëw xam nga mooy lan mm-hmm. mooy bu ñëwee au lieu que ñu jàngale enseignement bu nit ñi mën a jariñoo mais compétition lañ koy def mm-hmm. maanaam akay ah, ah ñun ñoo fi man ñu teg Ousmane Ndiaye ne ko waxal ñu si yonent bi mu ni ah mu bàyyi yonent bi naan Maodo fi raw def na lu kenn deful ñu jël la ne la waxal ci màggal nga naan Sëñ Tuubaa feraw moo fi def lu kenn def bu ko wàllu compétition mooy ñëw su boobaa nag taalibe yi dootuñu amati repère mais dañuy jàpp ni ci ay lamb ay mbëre ay mbëre def compétition mm-hmm. alors que du compétition dafa war a nekk enseignement boo xamante ni kenn ku si nekk da nga see war a jële pour defaru si parce que mag ñi loolu moo leen taxoon jóg ñu jóguñu pour wane seen bopp mhm. moo tax Seydi Hadji jëloon ay œuvre am ak yëppam nëbb ko rek pour feeñal yonent bi pour bañ werante ak concurrence ante si diggante di yi mhm. leer nañ euh, imam sa sa bëggoon naa nga réagir si li Ousmane Ndiaye wax c'est extrêmement important waaw li mu wax am na solo je ko mhm. que démb ku déglu discours Serigne Babacar Sy loolu la leeral ni que ni image wàcc ay saaku ceeb ñaata nit a fa ñëw euh, xool def xayma euh, am na dix millions de taalibe yu fa ñëw foog naa loolu taxul woon jug Cheikh El Hadj Malick waaye dundam ci ñetti principe la ko tënk walay sa li amalun alxaaka yaamali si wal mahabbati d' abord am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa ko njabootam wa taadimi màggal ko màggal guddi juddu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wasalami bu ñu fi jógee tam résultat yi mooy lan ñun ñëpp nañu roy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikko ci quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans yoo xam ni ñii gi au Sénégal wax dëgg yàlla te ñuy wax ni diwa ngi taal jëkkëram diwa ngi ray kii wam diwa ngi xaru foog naa gàmmu c'est une occasion ñu fàttaliwaat jullit ñi de manière général ni leen du ñu ay mala ay ay nit lañu ñu xool naka la ñuy royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ci ay jikkoom foog naa ren aussi chaque année dafay am nag thème thème ren bi mooy jàmm jàmm la paix solidarité mi mm. ngoog paix solidarité alors docteur ñu bàyyi la nga nga nga nga tëj en deux minutes xëy na nga résumé ñu man buntu yi man intéressé na ma trop waaw buntu yi comme dama la ko waxoon rek <laughs> nga résumé ko waaye euh, mën nañu ko résumé ci deux minutes muy benn mhm. ñaareel beetam kii niveau bi mu doon waxee mhm. niveau bu terre à terre kii may wax nii niveau mu nekkul niveau bu woyof nii maanaam loolu xëy na buñ ko bëggoon dañuy seeti beneen téere mhm. mais téere Cheikh Al Hadj Malick mhm. téere bi mhm. niveau bi dafa kawe ba bu bu ñu ko jëlee euh, noonu xëy na du ma dem donc man li ma bëggoon wax rek mooy ñoom ñoom seen niveau dafa kawe luñ ko suufeel suufeel mu kawe te man yaakaar naa ci loolu laa rek man maa ngi doon def euh, maa ngi doon def euh, dogme et philosophie donc loolu laa xam mooy waxtaan tout le temps loolu la ciy feeñ waaye yëlëb gi ma la doon wax nga xam dañ koy yëlëb nit ki ci ñaari fan yu jëkkee muy tey ji ak suba suba xam nga gannaaw suba xam nga lu ñuy wax hmm. mooy dañu wax ne yorante bi fi gën gannaaw suba loolu rek lañ lay andi ñu ne tax mu gën parce que jukkoom dafa rafet ñu ne lan mooy tegtal ci jukkoom ju rafet mu ni ku jaaxle ci moom nga daw jëm ku jaaxle buntu ñetteel bi loolu lay wax maanaam mu yorente yeek ñu baax ñëpp ku jaaxle foo jëm ci yonente bi sallallahu alayhi mooy euh, di wane sallallahu alayhi wa sallam ni euh, maanaam gane na àdduna gane àdduna googoo tam day bëgg a wane ni gannaaw nee na moo fi gën dafa bëgg wax ni nit ni ko xajabel doon waxe waaw fa mablagul ilmi basharun loo ci man xaw nit la waaye ñu bëggoo indi gane àdduna gi kon nit la ça veut ko que kon jukko yi ñu lay wax ci moom boo ko jéemee roy ndegam yëlëb gi sat na di ko roy mooy ñeenteelu bunt bi juróomeelu bunt bi mooy ñu andil la ay xarbaaxam xarbaax yi bi mu ci gën a indi mooy yonente bi salaa sallam fekk na ko gumba mu laal ko bët bët ya gis fekk na koo xam ne fekk lañu def ci bëtam bët bi yuriku mu laal mu dellu ko loolu nag mu bëgg la wax ni loola la ko may sama boroma waaye mi ko jaarale ci jukko bu bu rafet bu sa jukko rafetee rek yàlla mën laa defal lu ne kon loolu ci la doon andi mucjise yi euh, juróom benneelu bunt bi mi ngi ci doon wax alquran bu doon lu bëgg wax ne itamit jukko boo ko amee da ngay am fooy sukkandiku da ngay am fooy dellu da ngay marjaiya moo tax mu indi ko alquran ak mu tedd moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ba ñu laajtee soxna Xadija lan mooy jukkoom mu ne jukkoom mooy alquran euh, loolu moo tax Mouhamed Boussiri indi alquran ni moom bu masaan di wax wala muy def ci alquran rek la dellu juróom-ñetteelu bunt bi mooy ah gannaaw nag mel na nii indi na alquran nit ñi daañu gàntu non seulement daañu gàntu mais ñu taxaw ni ko du fi mu ne ko nag nga wut doole taxaw nag ni nag danaa ko fi waxee mm-hmm. loolu tax na mu gàddaay jógee màkk dem Medina bu mu demee daal defar ab état état boo xam ne taxaw na daal di euh, guerre juróom-ñeenteelu bunte bi mu ne nag Mouhamed Boussiré daal di ñëw nii maa ngi ñëw ak fukkeel bi maa ngi ñëw di wax koo xamante ni ku tedd la teddam nag maa ngi ciy wax lu am solo mooy yàlla dafa am turu ñu wax almuntaqim mooy vengeur maanaam tey nit ki tooñ na ñu fudd ndiggam mu ni kooku turu yàlla almuntaqim benn tur la ci tur yàlla yi mu ni waaye ba ma laa laalee tur yonente yi sallallahu alayhi wa di ko wër di ko xool gisuma ci benn tur ci turam yooyu walan yadiqa walan yadiqa rasulallahi jaahuka bi idal karimu taxalla bismi muntaqimi bis bu yàlla jëlee karwaasam ni dafay fudde ndigéey sa damay ñëw laxasu ci yow na xam naa ne fokk dig ma làq loolu nag ci la tëjee bunt ba daal di wax nag ni yàlla ci barkeb sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaan fii ma jaar ba agsi fii mhm. yàlla nag ma àggale fa ma jëm te fu mu jëm kat mooy jeex takk ci sayyidina muhammadin loolu la ñuy ñaanal képp ko xam ne mi ngi gàmm dem ba jeex tàkk ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te jeex gi kat du làmmiñ mais jukko la te jukko ji moom teel na wax ni nit man na mel na moom roy ko ba ñu yëg ni niru nga bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadj Malick la defoon noonu doon jàngale njabootam gépp noonu la doon ko defee loolu daal mu doon bunti asalaamaaleykum. leer macha allah jërëjëf euh, Abdou Aziz sama consultant nga nga sa kàddu bu ñu tëj. waaw rek ci gàmmu gi wax thème bi wax na ko. Mhm. tey solidarité jàmm ak jàppalante. mais am na programme bu am ci gàmmu gi. Mhm. samedi incha allah conférence internationale moo fay am. ay ñu jóge bitim réew ñoo ñëw foofa teewoon ci euh, auditorium ba fa la ñu amalee ñaari bis yoo xam ne ci xam-xam rek la ñuy indi professeur Abdelke mooy président euh, comité scientifique bi ci wàllu woowu la ñuy def beneen bi ci des li ñuy ñaan nit ñi ñu yor presse ñu ñu ñuy traité ci li soxal nit ñi ci gàmmu parce que pa euh, papis foog bu ñëwee ci bis bu mel ni màggal bis bu ñu mel ni gàmmu ñu indi nit ñi di leen defar reportage yoo xam ne dina leen amal njariñ fekk leneen loo xam ni bokkul ak diine dara nga indi ko ci wala loolu aussi ñun sopp na ko ci wala kenn sopp ko ci ñetteel bi ci des moo di la sécurité boobu dafay dafay am solo ci bis bi moo tax euh, gan ñii ñëw tamit war nañ am lu ñuy indaale parce que ci ay kër la dal ci xol la dal ci ay ay xar kanam yu sell la dal te sëriñ bi wax na ko ba pare fi may jeexalee papis moo di euh, dafay am ci programme yooyu am day am ci biir gamo gi am na ci tàkkusaan goo xam ni Sidi Jamil la mais am na ci tàkkusaan goo Seydina Cheikh euh, Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu danga koy jagleel te ñoo ngi ko koy jagleele ci bërëb bu nga xam ne moom lañ ko tuddee kooku xalifa bi ak njaboot gépp dañuy teew ci tàkkusaan googu mm-hmm. te loolu tamit dafa bokk ci programme gamo gi ak yeneen nag ay conférence ay waxtaan ay ñi ju fay am ay daayira yu ñëw di wasifa ci kër yi du ñëw rek ci gàmm ci kër du ci jàkk jarek lu ñuy wasifa am na kër yoo xam ne daayira fa nekk dañuy am wasifa njël ak ak ak ak ak ak timis mhm. yëpp dañu ko fay def kon yooyu yëpp nag dafay bokk ci li nga xam mooy programme bi xalifa bi joxe ay instruction ni képp koo xam ne da ngaa ñëw Tiwaawan te nga war a ñëw te ñëw pour jaamu yàlla ni nga dëppook li dëkk bi laaj te jox ko orma jox dëkk bi orma ñu teg mu wër jàkk ji wala mu bañ a wër jàkk ji sopp nu ko fa message bi leer message bi dafa leer loo rek lañu bëggoon porter pour ni pèlerins yi ñëw mhm. mais aussi nit ñi nga xam ne ñoo leen di daloo mhm. mais aussi li nu bëgg dëkk ba yelloo ko mooy Euh, jaamu yàlla ga ak sellal ga ak dëppoo ak li nga xam ne moom la dëkk ba laaj ci wàllu orma message bi leer na Abdou Aziz Mbaye nekkoon sama consultant nekk en même temps euh, sama invité donc euh, boole ñaari casquette yi ñu lay gërëm grand frère di it nuyu ki nga xamante ni moom mooy Ousmane yaay nekk nii si sa wet di ab jàngalekat professeur Imam Jabel euh, Kouyaté moom it euh, bokkoon ci émission bi euh, docteur Bachir Ngom dégg ngeen ko bunt yi ak nu mu ko leeralee macha allah burdu bi je crois que am na si ñu mu leer seen bopp nekk di tey di it delloo njukkal Ousmane Diaw di ab professeur moom it moo jokkoon ak ñun. ci téléphone bi kon mu nekkoon spécial burdu lan lañ si fu mu jógee fa muy jëm dégg ngeen si gars yi li ñu si wax tey macha allah. di ñaan gàmmu jàmm di gërëm ñëpp ñi nga xamante ñu ngi seetaan euh, di ko delloo it euh, suñu réalisateur suñu séeréer bi Vieux Diouf ñu leen di bàyyi ak programme TFM ba léegi jërëjëf